auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir am mbokk Lune TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi mbook mboolem waa axlu Mbacké gi rek tey ñu ngi am mbégte ak kontante ñëw fii ci Mermoz ci kër Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Khadim Mbacké Mamour Diarra borom Sam Diko ko si ci bés bi nga xam mi ngi koy amal tey di ab ziar general. ci fédération des daayira Nuuru Kéemaan kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la bàyyi nga nuyu mbooloo mi rek bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikh na cheikh ahmadou bamba xaadim di amaat mbégte bu baax a baax a baax di ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir xalifa général de Mouride yoon wi sagub lislaam yàlla na suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ko kattan yéene ji mu ci liggéey ko sëñ Touba mu ñi nga xam ne ñoo ñuy mën a nekk rek sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. mel ni waa télévision Lune TV. dañoo ñëwoon tey ci bés bi nga xam ne moo di siyaar bi nga xam ne yaa ngi koy amal fii ci Mermoz ñu bëggoon xam lan mooy sababu siyaar bi. waaw ñu ngi sant bu baax a baax rek euh, ñi nga xamante teewlu ci liñ kii fi sabab bi nag maanaam mu ngi bàyyi woo sax ci bokk taalibe yi ànd di liggéeyal sëriñ Touba ci tool bi toolu lislaam euh, yàlla dogal ñu tàmm bis bii tey di bisu ñaareelu fan ci mois de janvier. Euh, ngir àndandoo si ne dañoo bëgg a siyaar si ñu nangul leen ko itam yàlla dogal ñu toll ci deuxième édition daaw ñu defal ko ren nekk ñaareel bi at loolu nag waaye mu ngi jóge ci mbokk taalibe yi xër gu ñu xër ak yéene yu ñu am ci siyaar seenu sëriñ ñu dajaloo ci seen biir àndandoo ne dañoo bëgg a ñëw siyaar si ñu leen koy nangul te fas yéene koo ànd ak ñoom waaye nag ñu jël siyaar beeg lépp rek delloo waat ko ci sëñ Tuubaa mi nga xamante ni tey lu xool ci ñun ku mën a doon rek di ko naw mu ngi jugee ci baaxu Sëriñ Touba kon ngi jël siyaar bi ak sant bi lépp rek di ko delloo Sëriñ Touba di ko di ñaan euh, mboolem ku fi teew yàlla na suñu borom faj say aajo barkeb Cheikhul Khadim di ñaan it nga xam ne moom la Sëriñ Touba diggee woon ku ko fekk Sarsara ñu indi la seen ila Sarsara xat xasadu siyaaratin faaraxu daaray ni aw saara waxoon na ni képp ku ma fekk Sarsara daa ngi ñaan suñu borom àqale la ak ay bàkkaar kon ñu ngi ñaan képp koo xam ne teew na fi rek yàlla suñu borom defal la yoolub siyaar boobu ndax mu mel ni daayira Nuuru Kéemaan ñoo amal siyaar bi nga xam ne moom lañuy amal tey kon ñu bëggoon xam ba xam fédération bi daayira yi Dakar rek lañ yam wala Sénégal kese lañ yem wala seet partout dans le monde. waaw fi ne de fi ñu tollagum ci liggéey bi mooy daanaka ci Sénégal bari na ci ay gox yoo xam ni bàyyi ko nañ fa ngir fekke siyaar bi. ndax barab bu mel ne Saloum ca Njombaat am na fa ay kuréel yu ko féete bu mel ne euh, Ndar ak ci yeneeni barab yu fasanti ko mu wute ci Sénégal am na ñu fay jógee di bàyyi foofu di ñëw ngir fekk si siyaar bi tey waaye daanaka liggéey bi mën naa ne mu ngi ëppee ci Dakar waaye nag fi ne ci dak ci Sénégal moom bari na ci barab yoo xamante ni mbooloo fa la ñuy bàyyi ko di ñëw fekk si bis bi waaye nag cant la rek sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ba xam man xadama ni aw zaara fa najji yi wax fir na ko aw maa ngi ñaan yow yàlla képp ku ma liggéeyal wala mu siyaar ma na nga ko jéggal ay bàkkaaram te na ko may ak def loolu nag amaana moo ko waral waaye fédération bi moom yaatu na lool ci biir réew mi te it ci ëpp ñenn ñi ay élèves lañ nekk ci université di jàng ñenn ñi itam nekk ci barab yu fasantikoo yoo xamante ni wuute na ci biir Dakar ci biir Sénégal ci biir Sénégal daal yoo xamante ni ay benn benn danañ fa bàyyi ko am na ci gox yoo xamante ni ay daayira ñoo fay bàyyi ko yi di ñëw di fekk ci barab bis bi tey waaw waaye fédération moom noonu tëddee mu yaatu na ci biir Sénégal macha allah Mbacke Balla mu mel ni comme ni nga ko leeralee rek fédération bi nekk na lu yaatu ci Senegal mën naa ne ndax Dakar rek la yam même bu fekkee ni li ëpp ci mbooloo mi Dakar kon ñu bëggoon xam mbooloo mi nga xam ni ñoo Dakar daayira yi nga xam ni ñoo Dakar Dan dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy mbooloo moo xam day daje di daayira ci sa ci sa ci sa ci sa ndigal la wala mbooloo moo xam bun, dañuy dañuy dañuy buñ buñ bu bu danañ am bus, bés bés boo xam ne daal danañ ko daayira ak siège yi nga ñëpp ñoo bokk benn siège la ni daje wala ku ci nekk da nga am siège ba nga xam ni fa ngay nekk comme buñ gis niñ gisee yenn fédération yi nga xam ni jamono ji dañuy am yenn ndaje yi ñuy amal di ko amal lu mel ni Masaalikul Jinaan wala yenn milliers yi léegi ñu bëggoon xam ba xam fédération Nourou Kémane moom am nañ siège boo xam ni fa la mbooloo mi di daje waaw fédération Nourou Kémane nag siège bi caaroy la ca daara ja waaye li ko dalee ci dimanche ba samedi bis bu nekk bisub daayira la bis bu nekk yi ak mbooloo ma cay daayra ci biir Dakar maanaam mbooloo yi dañoo wute waaye nag amal nañ weer bu dee bu nekk ñu def fédération bi maanaam bii nag mooy doon siyaar bi waaye weer bu dee bu nekk danañ dem ci benn mbokk bi fekk ko ca gox ba nekk ànd ak waa fédération bi dem siyaare ji ko xamal ñëm dëkkal ni kii kat ci ñun lay ñëw te nii la féetee ci liggéeyu Sëñ Tuubaa yi ndax mbooloo mi dañoo wuute am na fii muy xamante ni dañuy féete ci kaamil yi bu dajee ci mbooloo mu mel nii am na ñuy féete ci durusul xasida yi am na ñuy féete ci wàllum turu yàlla bi am na ñuy féete ci yëkkati bi ak kuréel yi ak ñi nga xam ne ay Baay Faal la ñoo xam dañuy yëngu ñëpp ngi ci biir mbooloo mi waaye ñëpp nag sëriñ bi la ñuy tuddoo kon nag mbooloo mi mbooloo mu demee noonu la moo xam ne dañoo dañoo doon mbooloo mu fasantikoo mu bari waaye nag ñoom ñëpp weer bu dee bu nekk danañ daje waaye nag siège bi moom mu ngi nekk caaxaan waaye nag tey moom ñu jàppoon mu nekk bisub siyaar ñu jël bis bi nga xam ni moo doon doon bisub jokkoo bi maanaam ñu defee ko fii tey mu boole siyaar bi nag nga xam ne mbooleem daayira yi nga xam ne dañoo nekk ci fépp dañuy bokk daje fi tey waaye bu dul tey moom daayira yi nga xam ne dañoo féete Dakar ñoom ñëpp am nañ daje boo xamante ni ñu ngi koy def waaye di ko defee foofu ca caara wala ñu koy defee feneen ci mbokk taalibe ku ko soxla rek ñu dem fekk la ci fa barab def na allah macha allah jërëjëf mbàkke mu mel ni kon mbokki waa Lune TV leer kàddu yi leer na nañu nax bu ngeen xoolee suñ mi mi ngi ñu xamal ni siège bi ma nga ca caaroy foofa sa caaroy fa la mbooloo mi li ci ëpp di daje wala ñu dem ci kër mbooloo yi kenn ci mbokk taalibe yi rek fekk ko fa comme ni ko suñ bi leeralee rek kon mu mel ni ñoo ngi gis sànq ba léegi mbooloo mi fu nekk la ñuy jugee di ñëw di ziare sëñ bi comme ni ngeen koy gisee ci vidéo yi kon xanaa sëñ bi ñu bàyyi la rek te jéem a liggéey bi xool liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci bés bi ndax yaakaar nañ ni njàngum arxuraan gi ak njàngum xaside gi foofu ba léegi ñu ngi koy amal ci ci biti kon bu ko defee xam naa dañuy dellu ci biti rek pour fas yéene mottali liggéey bi foofu jërëjëf Mbacke jërëjëf